ba ci njëkk mooy yorin gu ñaaw gi ñu yor réew wax nañ jamono jële li xew ci jëndum ngànnaay gis ngeen ngànnaay dafa yàgg tas ay réew ngànnaay dafa yàgg tas ay réew te ngànnaay ñun suñu système ni mu doxee dañ koo mus a centraliser am ñu koy doon jënd ñu xam ngànnaay bi fan la jóge naka la duggee ci réew mi fan lañ ko stocké ba nga xam ne ngànnaay gune dinañu xam kan moo ko yor à temps réel mais bu ñu demee ba ay ministère de l'environnement di passé ay contrat quarante cinq milliards ci suñu budget réew pour ne day jënd ay armes de guerre problème am na ci réew gis ngeen ñun kenn duñu kenn duñu fa fàtteloo loolu waxu troisième mandat jotagul ngànnaa yooyu il faut mu leer sénégalais xam nu mu demee nga jël ko dem jox ko ab trafiquant d'armes boo xam ne nee nañ dëkk bi mu dëkk ñu ngi ko fay wër ngir ay luubal ak ay yu doy na yu doy waar est-ce que xam ngeen ni Macky Sall mi ngi tayle Sénégal te lii yëpp nag dara taxut waru ko lu dul pétrole ak gaz ak zircon ñoom seen mi ngi dugal ci biir réew mi ay nit ñu dangereux ñoo xam ne ngeen xam ni coowal 45 milliards yi mu jëndee armes bokkul ba léegi ak contrat bu duuna duun bi nga xam ne jox na ko ay israélien pour ñoo ñu defal ko benn ligne de garantie pour mu jënd des dizaines voire des centaines de milliards d'armement mooy li ngeen di gis léegi dara su xewee ñu génnee ay dragon ay chars de combat pour pour intimider pour xëbal pour xoqatal askan wi ba kenn dootul ñeme wax loolu il faut mu leer il faut mu leer moo tax ñu jox ndigal suñuy député déposé nañu pour ay commission d'enquête parlementaire parce que ñaar yi ba léegi bokkuñu de 45 milliards yi bokkul ak bu bu yahut yi te loolu faw ñu wax ci ba mu leer lii suñu yittee ba léegi ci scandale yi dégg ngeen ma sama dernier point de presse ma wax leen suuf si mu jël di ko jaay jox ko même yahud yooyu même même israël yooyu mu tuddoon noonu la jël dem dagg dëkk ba jël au commandement de la gendarmerie génne leen fa dem luwel leen almadi ñuy fay lu cher mu jël lu mat 5000 mètres carrés jox ko ñooñu pour ñu tabax fa ngandim immeuble defar la ñuy defar te ñooy moom immeuble bi ñoom bi ma ko directeur patrimoine bâti génn di wax ay waxu picc li mu wax yépp dafa confirmer li ma waxoon est-ce que ñun dañuy seetaan Macky Sall continuer moom ak ay ñooñam di pasar pasar réew mi nii di dem jël ay waa bitim réew di leen daggal suñu réew di leen ko jox dus dus bàyyiwul suuf si suufu taax yi comme suufu àll bi bàyyiwul géej gi bàyyiwul pétrole bàyyiwul gaz bàyyiwul zircon bàyyiwul lenn ñu ñu toog rek di seetal boo waxee ñu ne dañuy weddi man dama leen naan toujours man de pare naa pour ñu organiser débat ma teere ko fii ministère des mines na toog ministre de l'économie et des na toog ku ñu bëgg na ñëw toog moo gën nekk fii di fay ay nit ñu nekk ci mbedd mi di wax su doon pays bu normal la ñu nekk dañuy ñëw ñu débat débat public ma démontré leen ni jaay nañu réew mi Macky Sall ak ñi mu àndal jaay nañu réew mi su ñu ñëwee xëy na non c'est des questions techniques vers le monde. question technique bu lan jaay alal réew mi contrat yi ne fag ñu téye ko nga naan question technique kon dégg ngeen keroog assemblée nationale premier jour bi Guy Marius Sagna interpellé na ministre des finance ne ko israélien yooyu ba léegi yow signal ngeen leen benn exonération ne waruñoo fay lémpo fii Sénégal dégg bu baax li may wax dafa am solo jël suñu alalu réew lu mat ay centaine de milliards nga jox ko ay israéliens waa bitim réew ñooñu ne ñoom duñu fay impôt Sénégal débrouillez-vous mais du ma fay l'impôt ñu wel de wëlbatikuwaat Abdoulaye Daouda Diallo signé leen benn document ne leen du ngeen fay impôt du ngeen fay TVA fii biir réew mi ay dizaine de milliards ñu ñàkk noonu ci lu neex waa bitim réew te jamono joo xam ne tey jamono ji ñu ngi def tournée PPA boutiquier bi ne ci koñ bi su fayul cinquante mille francs yi mu war a fay ñu tëj boutique am waaye ku jóge bitim réew moom mun na ñëw ñu baal ko impôt wu ay milliards milliards loolu est-ce que jaadu na lii mooy les vrais débats au Sénégal c'est pas ay troisième mandat wu Macky Sall ay waxu kacaw buñ ci tollee dina wax Sénégalais ndax day def troisième candidature parce qu'il ne sera pas président une troisième Sénégal incha allah loolu au moins ñëpp xam nañ ko la ca des yëpp ay waxtu laa ak ay ñun suñu yoon new ji scandale yi fi am dégg ngeen démb ab ministre ñu interpellé ko ci scandale vingt neuf milliards prorog yi ministre bu nilaar boo xam ne làkk français bu leer sax mënu ko wax ci assemblée nationale ministre des finances moo mujj jël kàddu gi di ko tontul ñu jël ko def ko miir pour ne ko demal saaga Sonko dara xamu ko dem leen ngeen def interview ak moom ngeen ne ko mu làkk français fii lañ ko yóbbu France mu naan xaw ma ñun suñu tourisme on a des animaux xaw ma loolu mooy ministre Sénégal léegi nit ñu ñàkk solo la ñu jël benn qualificatif ba qualification la ñu am mooy mën nañoo saaga opposition bi ñu def leen ay ministre ñu dem assemblée nationale ay député di leen toroxal foofu mu weddi ne moom benn rapport épinglé ko waxul dëgg waxul dëgg il a été épinglé par le rapport de l'IGE mun naa leen liiral pa passage yu bëri xam nga ñoom lu ñu xamul ñun document yëpp la ñu am téye ko léegi naa saa yu ñu xëy dañ naan waa ji fan lay jële kan moo koy jox léegi weddeetuñu de waaye kan mooy tóob bi la mooy coow li rapport IG bi li mu wax émission par le ministre de tutelle d'un ordre de service de démarrage antérieur à la notification et à l'enregistrement du contrat en raison du principe de la chronologie des actes de procédure La notification de l'ordre de service de démarrage ne peut être envisagée qu'après celle du contrat auquel il se rapporte. Ce principe basique du de compte des contrats administratifs n'a pas été également observé dans le cas d'espèces. En effet, alors que le contrat n'a été notifié que le 25 juillet 2016 à l'entreprise Green 2000, le ministre Mbambegna, assurant la tutelle du PRODAC, avait déjà émis cinq mois auparavant un ordre de service, numéro, etc., etc. Cet état de fait est d'autant plus déplorable qu'il résulte non pas d'une ignorance des textes, mais plutôt d'un souci de répondre aux exigences non contractuelles de monsieur Daniel Pinassi kooku dem taxaw assemblée nationale Sénégal yëpp di ko déglu mu ne moom rapport épinglé épinglé wu ko damay toog ba si ak ma ne ñii est-ce que seen bopp yi am na lu ci nekk ak nu ñu yabee sénégal yi kooku la Macky Sall jël def ko ministre ak ki nga xam ne moo luubal 94 milliards yi rapport recommandé naa ñu ubbi léegi des poursuites pour escroquerie sur les deniers publics Macky Sall jël jëm jël jëm jox ko ONAS dégg naa bi mu egsee fekk na ko déjà benn financement de 40 milliards bu yóbboo sénégalais xam ni quarante milliards yooyu <laughs> lu yàlla xam baax na mais lii mooy Sénégal lii la ñu war a waxte waxtaanee ci réew mi.